الشين مهجمة والكاف والراء الراء والباء وهو الباء والراء الشين مهجمة والكاف والراء الراء والباء وهو الباء والراء الشين مهجمة والكاف والراء ku dul moom <coughs> fexi sëriñ bi ci mokkal ñett yii ñoo nuroo mbóot wàll yu kaamil ku dëgg waxteef dëgg ndax wàll kaamil mën nay waxtaan ak yow teewul mu nekk feneen di fa def leneen ku al alxuraan dëgg itam mën nay waxtaan ak yow di tari wax ci dëgg moom noonu ma man mën nay waxtaan ak yow di def leneen moom itam man nag jot naa ne li tàmbulee ndax wàllu yu kaamil sëriñ bi waxu ko ku doon nettali rek moo doon teqale wallahu taala axlamu sëriñ bi nee na ku mokkal alquran seetu seetutu ci dara ndax muñ lewet lay boole ak lu bari ci jikko yu baax yi doo ko mokkal sëriñ Tuubaa bi nekkee njaareem te tubaab yi may ko ñeent fukk rek féete ga sëriñ bi dafa waxoon ñu mokkal alxuraan rek lay doon sëriñ bi nee na alxuraan ñam wuñ ñam wum fonk la te du ko def fu dul ci ndab lu mu fonk sëriñ Tuubaa nee ku ma liggéeyal dafa fàtte alxuraan duñ la yor ci bàmmeel te mokkuloo alquran waxi sëriñ bi ci firi alquran sëriñ Tuubaa xaadalahu laahu maxtaara nee na dëkkub yëfi la ko tax mooy firi gën nee na alquran bu leen ko firi bu leen ko firulu te fu ngeen fekkee jataay buñ koy firee bu ngeen ko mënee wute moo gën am na kum yónni woon ne ko feek ngay ñëw bu fi fekk fu ñuy firee alquran bu fi naan soow mbaanik bu fi lekk xaalisu carte ak gannaaw bu lii jàllee sëriñ bi nee fekk fekk fu ñuy firee jar na sol dalli weñ di daw ba mu yàqu waxi sëriñ bi te xasida yi sëriñ Tuubaa xaaral loxo loxo maxtaara loxo nee nañu mosu bu masaa wax sama téere ba nooru daaree ni la ci jublu bu nee téere ba muy fulkul mafhoon wala muqaddimatul xidma ci yenn nett lay xasida muqaddimatul amdah sëriñ bi noonu ko woon a génne waaye dafa am lu doon bindloo sëriñ Moussa Alima wanaale ko ko daal di ne ko <coughs> moom nag dafa war sa génn waaye téye ko xool ko feek ngoon ba bu ngoon jotee mu ne ba ngoon jotee ba mu ko indee sëriñ bi laaj ko lu ci jot a mokkal mu ne ko fukki bunt ak ñett mu ne ko kon de faat na wér na lool lii mooy gàtt lu mu nekk li bi bari na lool nag ay wute ci nettali ci nettali ni sëriñ bi nee na mawaahibu naafi fuñ koy yàqe kenn du ko yàqoo mas ñuy jàng barsam ji sëriñ bi génn ne jës bu mawaahibu muqaddimaat bi maaxin basirin doo leen sëkk am na ku ku mas ji jàng jaalibatul maraaxib ci buntu sëriñ bi fukki yoon ak ñaar ba mu àggalee sëriñ bi génn ne ko yow jàmbaar nga de mu ne mes ba tey jii kenn xamul fu mu ne sëriñ bi nee na xasida min lawxil mahfuus ku ko mokkal mooy doon sotom ci munkar ak nakir sëriñ bi nee na xasida jaawartu ku ko mokkal duñ la laaj ci bàmmeel sëriñ bi nee na jës bu mawaahi bu muqaddimaat ñooy ay fas yi nga xam ne ku leen war te wàccoo leen danañ la cëppeel ci àjjana sëriñ bi nee na xasida yi bu doonoon am picc ña koy jàngkat yi ñooy laaf yi déglukat yi ñooy dunq yi sëriñ bi daana warlul ku mokkal bisimilahi fi nii aw fas ak ñaar fukk juróom ñett ak àjjana sëriñ bi nee na yaafar bu mësta jaamu yàlla bu faatoo nga bëggal ko àjjana jàngal ko muqaddimatul amdah ba ca albaaxi bi xatti karamatan kuntu an ardil madinati shana yi jërul sax ngay àggale sëriñ bi nee na li ma di defal du ma ko def ci alquran du ma ko ci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 ñu nekk fa moom di ko wéttali di ko leeral ba mu sëriñ bi mas naa laaj mag ña ne leen sama téere bi ñuy wax nooru daare ni ndax xam ngeen lu muy firi ñu ne ko xanaa leer adduna ak alaxira nga ci jublu sëriñ bi ne leen déedéet ndax adduna du kër li ma ci jublu mooy leer gi lay tee tàbbi sawara di la xëcc ba dugal la àjjana ndax sawara ak àjjana rek ñooy ay kër sëriñ bi nee na yowmal xiyaamati ku ku mën a yor raayaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ jàngee wenn way ci muxaddimatul am daax danga ko wacc daw sëriñ bi nee na li ma tax bàyyi bind saafara mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa miin jëmale gi may jëmale sama xalima ci moom ba bu ma jëlee sama xalima mu ree ma daal di bàyyi la ma naroon a bind far jëme ko ci moom